kum di nuyu mboolemu sénégalais yi euh, di beral nuyoo nag waa Thiès ñi nga xam ne ñoom ñooy voté fii ñu toll nii euh, di di sant di sant ba élection yi mujj am après ñaari at de report euh, malgré ñaari at report yooyu aussi démarrage bi sa a été très poussif ci li ñu gis maanaam centre yu bëri dañu yéex a dañu yéex a tàmbale malgré ñaari at report Euh, dañu ne woon nag exploit dafa ñu woon te da lépp waaye gis nañu ni affaire bi dafa xaw a mel ni dafa gën a euh, jaxasoo waaye lu ñuy ñaan daal na bi déroulé wu dans la paix dans le calme man yi sax euh, manifestation yi gënalu ma ma sañoon ñu voté tranquillement comme tout citoyen dem tranquillement nii fii muy feneen jour élection yi campagne bi jeex na dañu war a def tout dans la paix dans la tranquillité bu ma sañoon manifestation yeeg euh, kii yooyu yëpp dañ koy voté ku d'ici 18 heures dinañ xam ku gagné mbir mi jeex après ku gagné ce qui l'attend est beaucoup très beaucoup plus difficile parce que vu les chantiers notamment Thiès nu mu mel fii ñu taxaw nii rek ay mbalit kese la école bi def naa ni nit ñi dañu war a conscient des enjeux xam ne que c'est des responsabilités immenses qui attendent tous ceux qui vont prendre en charge la ville président Thierno dañoo gis sànq am na ñoo xam ne ñëw nañ fi mais seen bu ñu indee seen carte d'identité mais seen tour nekk fa deuxième bi ñu gis war yi tamit na tàmbale lool loolu problème la deuxième deuxième deuxièmement gis nañu aussi que am ay centre yu bëri euh, nit ñi dañuy obligé euh, gars yi voter trois fois maanaam ku bëggul voter ville wala département ñu ne dañ lay forcer nga voter ku mu neex mun nga voté benn yoon dem si yoon mun nga voté ñaar yoon dem si yoon mun nga bañ a voté man voté naa ñett yëpp mais personne n'est obligé de voter il y a des présidents de bureau de vote notamment école de Mbour qui abuse euh, da ngay xam ne ñii dafa am fu ñu faam loolu par parlo bi warul warul nit ki bu ñu la dénkee euh, liggéey da nga ko war a def nu mu gën a sellee sa aqulaay taala waaye bëgg a defloo nit ki par force parce que xamul ci lu dëppoowul ak loo xam ne constitution bi te am na charte choix daf le choix est libre maanaam ku nekk nu muy nu muy daan daf ci war a am sagoom ànd ak sagoom ak bëgg-bëggam waaw